mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu na gën a rafete te gën ne selle gën ne matale diggante jullit ak moroomam jullitam ñoo ngi leen sant bu baax tey rafetlu jataay bi lool comme ni ko soxna Mbène sàkkoo muy mu ci fii kàddu yu soññee muy loo xam ne rafet bi nañ ko lool ndax ay jullit bu ñu dajee luñu ñu néew néew bala ñoo càqali ko war nañoo fàttalante li leen war seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seen moroom jaam kon nag tey dañuy jukki rek ay tomb tombi Cheikhuna al Xadim yim daa tomb di ci jàngal mag ñi di leen ci fàttali bés dafa dajale mag ñi ne leen diine ba diine jeex ñetti xaaj rekk la waajib mooy li war man doog mooy li ñu sopp mu baax mooy li dagan dal di ne li leen war nag yéen mooy ngeen wàcc lal yi te dem ci ber yi ndax tëra ngi ñëw boo xam ne ku ca àgg da tëdd loo bëggoon a tëdd da nga tëdd loo a tëdd Cheikh Nal dañuy xamal foofu rekk ne fii di àdduna amul noflaay dañu fee ñëw ngir sàkku ngërëmal yàlla ci jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñëwuñu fi ngir fo wala jaaxaan wala ngir bànneex kon fulla ak fayda mooy kenn ku ne la tax yàlla sàkk ko mu nekk ca sëriñ bi di xamal ne àdduna gàtt na gàtt goo xam ne noppalu xaju bi na nga xam ne saa suy su ne dem na tudd tuddee waxtu wii wu ne dem na tudd tudd delsi bés buy wu ne dem na tudd wuy wu ne dem na tudd tudd delsi at wuy mu ne dem na tudd tudd delsi kon saa su wéy su ne waxtu wéy wu ne bés buy bu weer wuy wu ne at wuy mu ne wàññeeku ne ci li nga war a nekk fii ci àdduna kon waxtu wu ne yaa ngi wéy di gën a jege dee te xamoo kañ la ak fan kon mbokk mi saa soo tëdd sune ngir sa bànneexu bakkan yaa ngi ñàkk loolu mën a dabaatal ba faw bàmmeel xat na xóot na tàng na te ca maam aadama ba léegi ñafaatu ñu nga tëdd ba tey kenn demagul fenn kon tëraay gënu koo yàgg moo tax sëriñ bi di ñu xamal ne ku nekk ci li ko neex topp bakkanam di wéy ci bëggam tëraayu bàmmeelam dina yàgg ci moom lool dina naqari te dina ko soof ku muñ noflaay nag ngir dabu bànneexu boromam dina noppalu ci bàmmeelam dina tëdd lu mu bëggoon a tëdd ci ci àddina te doon ko muñ te yàlla rekk tax sëriñ bi kon dañuy muñ loo sunu tëraayu àdduna nu bañ a topp sunu bakkan ci bëggu noflaayam nu bañ a topp sunu bakkan ci bëggu bànneexam ndax moom bakkan du du nu wommat jëme ci lu dul sunu loraange ëllëg ak réccu looloo tax sëriñ bi ne li nu war mooy nu wàcc lal yi te dem ci der yi ndax tëdd ngi ñëw boo xam ne ku ca àgg da nga tëdd lu tëdd da nga tëdd lu woon a tëdd sëriñ bi dal di cay teg ni ndax xam ngeen seen mën doo ñu ne tekk mu ne mooy ngeen bàyyi ndamu yi bañ ne bés bañ ci démb la woon ku tedd ki ci leeral dañuy xamal foofu rekk ne nit ki fii ak mi ngi noyyi yàqule weesagul ci moom ndax seytaane mi ngi koy tum lu waxtu nekk di ko gasali kam te suñ borom jox na ko doole joo xam ne ku mu rëbb du sooy bu ko yàlla dimbalewul am na ku mas a ree reegu kawe ci kër sëriñ bi ba sëriñ bi dégg ko sëriñ bi di laaj ndax dafa jéggi siraat ba pare ngir rekk jàpp ne kenn wërta tal bànneexu wala lu nuru ndamu fii bés bañ ci jàllul mbirum balaam ak bristis day na firnde ci waxi sëriñ bi ay boroomi xam-xam lañu woon doonoon jaamukat yàlla yu dëdd woon ba sori lool ci yàlla waaye dañoo mujj bokk te ñëpp a yees lépp ci pexam seytaane rek wala ayaadu billah kon bu nu naw suñu jenn jëf lu mu rëy rëy wala ñu di ko ndamoon mën ngaa jëf mbir mu rëy lool ci yow wala ci bëti nit ñi fekk lu xeebu la fa yàlla te sax mën ngaa umpale ndax yàlla nangu na jëf ji wala déet bu nu ndamoo suñuy waajur ak nu ñu mën a toll ak lu seen jëf rëy rëy walla ñu di leen mbubboo ndax kenn ku ne ni nga jëf rek la lay fay kenn du la fay jëfi jàmbur ak kenn nit du la gàddul say bàkkaar Sëriñ Tuba dañuy xamal rek ne jaan bi war nay góorgóorlu fu mu toll ci jaamu yàlla yi lépp lu ko suñ borom digal mu def ca kéemtalaay kàttanam lépp lu mu ko tere mu di ko moytu lu mu mën di def lu baax te sax ci bul xeet dara lu baax ba ci dandale bant wala dëkk wala xottu butéel bu nekk ci kaw yoon ngir mu bañ a lor kenn ndax bu la ci suñ boroom di fay ëllëg da ne daa baax rek waaye deful ma ko lu toll nii waaye tamit bul yem jénn jëf ndax suñ boroom mën na koo bañ a nangu ndax ay ràgg-ràgg mbokk mi segam yaa ngi dund te leer na la ne te woo seytaane fu ne mën na nekk seen mujj ci maandu teg yàlla wala ci yërmande kon xamoo nuy mujje ëllëg di tax sëriñ bi nenu nanu bàyyi ndamu yi bañ ne bés dañ ci démb la woon sëriñ Tuubaa daal di cay teg ne xam ngeen seen mu baaxa ñu ne tekk mu ne dara dara dara daal ne dara ju njëkk ji mooy adduna ku ci xam dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des dara ju ñaareel ji mooy àllaaxira ku ci xam dara doo ko fàggul dara ba naw ko ndax dara du fa doy dara ji ñetteel ji mooy yàlla ku ci xam dara doo def dara lu muy tere sëriñ bi ci dañuy xamal ne jaam bi war naa xam àdduna bu baax xam ne waraa kon la bu daraam du wéy nanu xam ne sunu borom da koo sàkk sàkk nu ngir nu jaamoo ko rek bu ëllëgee ci àllaaxira nag kenn ku ne mu fay ko lu méngoog na mu doon doxee ci ndigalam yi ak tere bi xamal kon ne adduna du luy sax adduna faniya segam nag faaw mu jeex na la leer tamit ne faaw nga jóg fi kullu man alayha fani te li jële mooy dee kullu nafsin daa'iqatul mawt waaye dafa mel ne xamoo ko ndax gisoo ko mu doon jëm juy nekk sa wet moom dee wala sa kanam wala sa gannaaw di la topp wala dox ak yow da lay dikkal te buy ñëw du la tàggu laa taatiikumu illaa baxtatan dafoo mën a nekk mu fekk la fa aynamaa takuunuu yudrikumul mawt walaw kuntum fii buruujin mushayyada wala mafarra anhu amul fenn fu ñu koy làqatoo taw ma tadri nafsun bi ay ardin tamuutu xamoo fan la ak kañ la yaa ngi doon am kàttan am say projet am say mébét yu rëy dee fëkk la lépp ndax saay yaa ngi doon waxaale kër wala nga di ko tabax dee jël la jotoo koo dëkke yaa ngi war a takk soxna ba jàpp bés dee ñëw jële fi kenn ci yéen ñaar yaa ngi génn sa kër ak bu sa njaboot ndekete yoo mooy seen gise bu mujj yaa ngi añ walla ngay reer yàlla jël sa bakkan bala moo rees guddi jot na nga tëdd am looy mébét war koo def suba wala nga war a xëy liggéey faroo yow dee faw mu fekk la ci looy def te paree boo yóbbu la wala looy bëgg a def adduna war la gannaaw say bokk ñàkk la ba faw luñ mën a gëm ne dem nga te dootoo delsi te la nga nekk da ci xam dara jotoo cee tàggu kenn ndax ñàkkoon a xam kañ la rawatina gaawaayu teqalikoo ruux gi ak jëmm ji mooy raw xefat teg bi fekk la nag àdduna rekk yitteel la ngay wut alal mu jaral la lu ne nga ci xiiroo ak a ngaayoo di wor ak wax lu du dëgg di xëccooy daraja ak nguurug àddina ba mu jaral la faat bakkan sa baaraami day tànk yi tàmbalee sedd sa leen tàmbalee lëndëm ngay xëj am jafe-jafe noyyi sa papa ak si nag jeexal nga tàkk ci àddina ñi nga nekkoon di liggéeyal jàpp ne rek bi sax tey jii nag ngay am lu leer ne dee lu am la tey jii ngay am lu leer na lu yàlla wax dëgg la mosoo gëm ne ñii lay mettee ñu rob la mosoo gëm ne noonu la bàmmeel xate noonu la tànge noonu la wéete say bokk wan la gannaaw di dellu ci kër ya nga di leen dégg mu leer la ne tey jii jàqalikoo nga ak ñoom ba faaw te fi nga tëdd sa jëf rekk la fay wéttali ba yomal xeem say bokk ña ngay waxtaane dee ak ni mu la yóbboo waaye dee lan la war a wax ak yow mi ngi naan la sa ruux ji teqalikoo ak sa jëmm ji xanaa tey jii de mujj nga gëm ne dee am la baax dina ko def ku bon dina ko def dal di ne la dee mooy li nga xam ne kuy dund ku ne di nga ko ñam bës bii nag mooy sa bës biñ la digoon dootoo dellu àdduna te waxtu wi la dee di dikkal loo mës a jëf baa nga wax ko def na ko jaarale fi sa kanam mu mel ne ab film booy seetaan jëf yu ñaaw yi nga daan jëf naqari la lool ba doo ko bëgg a xool waaye waxtu wi mettilu rëccu ak tuub du la jariñ dara ndax sunu borom tëj na sa buntu tuub mbokk yi fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxaruur bu leen adduna war mukk ak yi nuru yu rafetam ak i bànneexam ndax dina la wan gannaaw ci diir bu gàtt ngir ak yàggate te adduna li ñu yàggadi di sa dund gi moo ko gën a yàggadi rawatina fi ngay mane ak fi ngay tëlee kon teel ko fase bala mu laa fase ndax moo lay noppal sallallahu alayhi wa sallam nee na az-zuhd fi dunya yurihu al-qalba wal jasad adduna boo ko wanee gannaaw te yàlla tax di nga noppal sa xol ak saw yaram ndax adduna bu la yitteelee waxtu wu ne yaa ngi doñ doñ te loo kërti kërti ba jot ca di bëggloo ca dolli te loo barile barile boo génnee gis loo moomul te loo fi mën a am bu ëllëgee yàlla dina laaj koo ko jëlee ak noo ko jëfandikoo ñuy wax asib radiyallahu anhu dafa nekk ni ne sallallahu alayhi wa sallam da koo romb génn guddi dal di koy woo mu topp ci ñuy dox ba romb Seydina Aboubacar radiallahu anhu dal di koy woo mu topp ci ñuy dox ba romb Seydina Omar radiallahu anhu mu dal di koy mu topp ñuy dox ba dugg ci toolub tàndarma boo xam ne kenn ci ansaar yi moo ko moomoon sallallahu alayhi wa sallam ne may ñu lu ñu lekk kooka dal di indi ciggub tàndarma bu mag dal di leen di tegal bi ñu xewloo ba pare sallallahu alayhi wa sallam ñaan ko ndox mu sedd bi mu naanee ba noppi daal di ne la tusalunna an hada yowm al qiyama lii ñu lekk nii des na leen ko laaj ëllëg yowm al qiyama Seydina Omar radiallahu anhu daal di gàddu ci gub tàndarma bi di ko dóor ci suuf mel ne ku daanu jël ba doomi tàndarma yépp tasaaroo ci kanam ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam daal di ne ko ya rasulallah inna la masuluna an hada yowm al qiyama kon lii ñu ñu may mu lew ñu doom ñu lekk ko dañ ñu koy laaj ëllëg yow ma xiyam sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw naam illa min talaatin xirqatin laxaqa biha awratahu aw kisratin sadda biha jawatahu aw xujrin yadxulu fiihi min alxarri walxarri waaw waaw lépp lañ ñuy laaj ci sunu dund ba mu des ñetti yëf mbalaan muñ sànge suñ awra daggu mburu wu ñu faje xiif ak mu ñuy seeloo naaj yu tàng ak sedd bi moo seeti ko fekk ko muy jooy Saad ne ko yaa axi looy jooy ku àndoon ak wa sallam loo war a jooyati Saad wax ko yu bari yu tax warut a jooy dara Salman ne ko Saad man jooyuma ngir àdduna mii ma nar a wan gannaaw wala ragal la may fekke àllaaxira waaye dafa am lu nu sallallahu alayhi wa sallam dénkoon wu ma ko Saad ne ko loola lu mu Salman ne ko sallallahu alayhi wa sallam dane lu woon kenn ku ne ci nun na doyloo ci àdduna lu toll na yóbbu lu koy tukki rek dama gis ne ëppal naa ko dal di ne Saad maa ngi lay dénk booy àtte wala ngay séddale wala looy mën a def ci àddina nga di ca bàyyi xel yàlla te Salman moom mi ak jooy mi metti yooyu bi faatoo ñaar fukki dërëm dong mu la bàyyi gannaawam léegi nag la ñuy ëppalantey oto dàqalantey kër ak i soxna gën a feesalante compte bancaire kenn ku lay ñaanloo ngërëmal yàlla amut te sàkku ngërëmal yàlla moo ñu fi indi fii ci àdduna waaye ñëpp dañ naan la ñaanal ma milliards yu ñu liggéeyee la sëriñ bi mel na kuy baat yàlla ak sëriñ bi te sa wërsëg yàlla noppi la ci bu ñëpp daje woon ngir xañ na li nga war am duñ ca mën dara bu ñëpp daje woon fas yéene nga bari le mënuñoo fexe ba nga weesu li la yàlla séddee mbokk yi daray àdduna jërul xëccoo daray àdduna jërul lorante daray àdduna jërul rey sa bopp bànneexu téeméeri at ci àdduna jërul mbugalum senn saa ci bànneex lii moo tax Serigne Touba nenu àdduna ko ci xam dara doo ko fàggul dara ndax dara du ci des sëriñ bi ba tey ci leeral mi ngi ñuy xamal tamit ne àllaaxira lu mat a xam la yafay xew ci tiis ak i naqar akum njàqare ak i metti lu mat a bàyyi xel mooy yow ma yafiru lmaru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ku gis sa morom daw ndax jàpp ne dina la fayeeku ak joo ko yore lool li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi ngir kenn ku ne sa mbiri bopp doy na la ci ñàkk a xam noo koy lijjantee bés bii suñ borom nee na yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idin bi banihi wa sahibatihi wa axihi wa fasilatihi allati tu'mihi wa man fil ardi jami'an tunjihi nee na da nga gis koo xam ne buñ ne ko woon nañ dugal sa doom sawara ak sa soxna ak say bokk ak sax ñi nekk ci kaw suuf ñëpp te nga mucc mu ne ay ceeb ndax rek bëgg mucc ci mbugalum yomal xiyam bu mbindeef yëpp dajee ca bés ci ba nag ñu fa taxaw ñetti téeméeri ak kenn du wax ak ñoom kenn du leen faale benn xibaar bu ñëw ci ñoom buy jóge ci suñu borom subhanahu wa ñëpp tiit jaaxle lool ne xujj di xool asamaan kenn du wax kenn xamul fu mu mujj danga gis ku naan rabbi arixni min hada al intidar walaw ila naar sun borom noppal ma ci xaar bu metti bii ma nekkee donte da nga may tàbbal sawara sax baax na segam xaar bi rek moom metti ba mu jaral ko dugg sawara ngir jàpp ne moo koy noppal kon xaw ma bu ñu tàmbalee àtte nu muy mel li moo tax Sëriñ Tuubaa ne àllaaxira ko ci xam dara duma ko fàggul dara ba ndaw ko ndax dara du ko doy sëriñ bi ba tey ci leeral mi ngi ñuy xamal sunu borom subhanahu wa ku ma a xam la jàmm bi war naa xam ne yàlla ko am na te ak amam amul fu mu na naka jekk mi ngi fi te lépp ay jeex mu des kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram te ak desam amul yemukaay moonu sàkk te tàgguwul kenn moom ñu te bokk na kenn moom lépp moom lu ne mu sañ ko ci noonu te lu def kenn du ne ko lu tax saa bu ko neexee rey nu ak ci façon bu mu ko neexee saa bu ko neexee dundal nu lu ko neex nu topp bu ko neexee tawatal nu bu ko neexee wéral nu bu ko neexee may nu ba duñ jeexal dara bu ko neexee xañ nu ba duñ dese tus njariñ walla lor du jógee ci kudul moom lu xew moom lu am moom mooy mbugale mooy jégale loo gis ci dogalam lay dox te man na lu ne te kàttanam amul yemukaay lii moo tax sëriñ bi ne yàlla ku ci xam dara doo def dara lu tere mbokk yi kon noo ngi leen di dénk nu gën a lu ci jaamu yàlla bu baax te sellal ko nu fonk julli juróom yi te bañ leen sàggane di woor weeru koor di natt azaka ci alal ju ko mate aj makka bu jàppandee te lépp nu dëppale ko sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam te góor góorgóorlu ci benn la suñ bopp ñun jullit yépp mbokk yi bennoo day warteef ci nun ñi di sax ñi ngi bennoo muy noone lislaam yi ngir sottal seeni pexe lu tax kon ñi jub mënuñoo boole seen bopp benn la seen bopp bennoo day tax am doole lépp lu nu song rek daan ko ndax doole mbooloo dara attanu ko bennoo day waral legeel benn noonu leen ñemee song ku ci wéetoon sax daañu la ragale mbooloo mi bennoo day waral xëy ba ku leen xool jox leen cër doo leen ñemee def mukk ab safar bennoo dina woyofal ab yam luñ leen mën a teg ñu àttan ko ak lu mu diis diis ndax bu kenn ku ne compee ca diisaay ba mu woyof ci ñëpp bennoo dina jàppandal ab dox dina ko gaawal maanaam lépp lu ngeen bëgg a def dina yomb fu ngeen bëgg àgg tamit dina gaaw mbokk yi bennoo day yokk yitte ci sa jublu di ko dëgëral di la tax a farlu te di ko barkeel lislaam day lu xir lool ci benn jullit yi alquran wax na ko ay yoon benn ci waatasimu bi xablillahi jamian ibnu mas'ud radiallahu anhu ak ñeneen ca gaa yu baax ya nee nañu fa xablullahi aljamaatu waljamaatu najaatun buumug yàlla gi ñu suñ borom sant ñu jàpp ko mooy mbooloo mi te mbooloo mi nee nañ ak mucc la ñu dégg ci ne tabaraka wa taala danoo sant nu boole suñ bopp ba doon wenn say ndax mbooloo mi ku ci bokk nim ñu ko sante di nga mucc ci lépp loo ragal te noonu la ko sante woon moom tabaraka wa taala yónnente yi jiitu woon assalaatu wassalaamu ala nabina wa alayhim wa ajmain ñoog seeni nit digaloon leen ñu bañ a teqalikoo mukk sharaa lakum min addiini ma wasay bihi nuuha walladi awxayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu diin wala tatafarraqu fihi albaxawi rahimahu llahu nee na baata allahu al anbiyaa kullahum bi iqaamati diin wal ulfati wal jamaati wa tarki al furqati wal muxaalafati mu ne yàlla dafa yónni yónnante yépp ci taxawal diine ak soppante ak boole seen bopp te bañ a wuutee ci len te bañ a xàjjali ko mukk kon yàlla yàgg naa santaane bennoo yàgg naa tere ak wuutee ak teqali ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fedd dina ndigal yooyu ci ahadit yu bëree bëri bëri ngir soññi ñu ci ñu gën a boole suñu bopp moo wax ne alaykum bil jamaa wa iyakum wal furqa fa inna alcheytana maa alwaxidi wa huwa min al ithnain abadu man araada buxbuxata al jannati fal yalzim al jamaa sallallahu alayhi wa sallam daneen la ci nun jullit yi ñu boole suñu bopp bennoo ba doon wenn say tey wattandi ko ak xàjjali ko ndax kat seytaane mi ngi ànd ak ki génn ci mbooloo mi di dem ak boppam te ñaari ñu jubóole ñaari ñu boole seen bopp la seytaane di gën a sori ci kenn ku beddi ko kon lu mbooloo mi gën a takku gën a bari seytaane di leen gën a daw mu teg ca ne ku bëgg ci xéewali àjjana ya na taxaw mbooloo mi mbokk yi kenn mënulul boppam lépp kenn ku ne soxla na ndimbalal moroomam ku wax ne mën ngaa ñàkk nit ñi jóom nga ak loo bari barile alal ak loo am am kàttan bés dina ñëw nga aajowoo sa morom kon bala nga caa àgg amal ak moom jàmm te benn la seen bopp masalan niñ koy waxee rek ana ku xam ci yéen ku koy sang bu faatoo ana ku xam ci yéen ku koy jullee ana ku xam ci yéen buñ koy jullee di ko ñaanal ku xam ci yéen kuy gas bàmmeelam ana ku xam ci yéen kuy teew buñ koy denc di jàng faati ak ixlaas di ñaan yàlla yërëm ko moo ne de mën naa doon koy doye dal naa doon koo xam ne boo ko rombee ko nuyu mën naa doon koo xam ne yaa ngi koy jëw di wax ci moom lu ñaaw mën naa doon kuy sàkku ci yow ndimbal nga gàntal mën naa doon koo ñàkk yërmande ci moom mën naa doon koy yàqub deram ci barab te moo ne li mu la defal mënuloo ko sa bopp te moo gën àdduna ak li ci biir muy ñaanal la yërmande yàlla kon mbokk yi nanu teel a boole suñu bopp bennale suñu bopp di diisoo di dimbalante di demlante bañ a xajal seytaane suñu diggante doon benn loxo di yëkkateendoo di tegandoo doon jenn jëm lu metti sa morom metti la ñu bokk naqar bokk banneex bokk lu ñuy bañ te di ko xeexandoo bokk lu ñuy bëgg te di ko sàkkoondoo yooyu yëpp nag mënta am mukk fi yëkk raxasuñu xol yi ba mu set ci keñaan ci joxor ci jëw ci rambaaj ak yu mel ne ñoom ci mbon ñu bëggante soppante wóolante yéenante jàmm kenn ku ne di mu bëggal boppam mu bëggal ko moroomam ñu yërëmante kenn ku ne la mu am ci xewal ñu yéene ko ko na ko yàlla def ñu nangul ko ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh